Pour la première fois au Sénégal, le dépôt est à 0 francs, le transfert à 0% et le retrait à 0 francs. moom sa Pour la première fois au Sénégal, le dépôt est à 0 francs, le transfert à 0% et le retrait à 0 francs.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 713 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy te bu ñu nee góor ngóoraa tax. yu di ànd bi ngeen di ànd ak Sunugal 24 di am mbégte bu yaatu dellusiwaat ak yéen seen émission droit au but ma ci dalal Souleymane Aliou Diallo moom mu ONG bi di Otra Africa. Euh, ngeen ràññee leen bu baax ñi wax lépp lu soxal ñi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi loolu moo waral sax bokk na si tax ñu woo ko fii si plateau bi fa seen waxtaanee diaspora ak seen i jafe-jafe waaye mu doon koo xam ne tamit borom xam-xam la di xeltu ci li jëm ci actualité réew mi moo tax du ñu ñàkk di ci waxtaan ak moom Souleymane Aliou ñuy rafetlu dalal bi nga xam ne nangul nga ñu ko euh, di la bàyyi nga nuyu ak ñuy suivre. alhamdulilah rabbil alamin Moustapha maa ngi lay nuyu euh, di la ziar. c'est avec beaucoup de plaisir may jàkkaarloog yow. Mhm. pour la première fois may ñëw si sunugal 24 point net. Mhm. muy structure boo xam ne vraiment mu ngi commencé am place si si mhm. auditeurs yi. merci euh, ma lay remercier vraiment di la encourager si liggéey bi nga nekk di jox. par rapport à l'information la communication am na solo tout trop surtout par rapport à l'équilibre féliciter la féliciter sa sa équipe féliciter sa sa sa direction. Mhm. j'espère que je vais filer droit au pour marquer mhm. l'opinion. <laughs> incha allah noonu lay demee sax euh, actualité bi dañ koy dooree ak euh, balaa ñoo ñëw ci mbirum diaspora bi lu soxal actualité politique bi euh, mbirum nemmeeku tuur bi ak coow la mu juróon naka nga ko gisee mooy tournée Ousmane Sonko ak coow la ci li ci juddoo woon lépp. waaw bon actuellement mu ngi def actualité bi mu ngi def buzz. Mhm. par rapport ak événement yi mbuur yi am si axe bi mm-hmm. bon yaakaar naa ni si wàllum démocratie euh, dafa am lu ñuy wax état de droit mm-hmm. euh, tey Ousmane Sonko c'est un leader d'opinion qui va à la conquête des populations mm-hmm. euh, war nañ ko ko mën a nangul si c'est bien encadré responsable politique qui va vers les populations pour s'exprimer à la rencontre des populations yaakaar naa ni nos force de l'ordre et de défense mhm. war nañ ci mën a am gis ne erreur la woon ñu ñu ñu doon ko bloqué waaw blocage bi si ban contexte lañ ko si si lan moo waral blocage bi donc yooyu yëpp xam nga ay contexte yoo xam ne c' sur la voie publique manifestation la c' est hmm, trouble à l'ordre trouble à l'ordre public bi mën na wax nga jox ko raison parti bi mais daal li si le essentiel mooy ni que moi je trouve que un politicien d' envergure de de Ousmane Sonko doit être accompagné et dans ses sorties hmm. ba genre événement yooyu trouble à l'ordre publique yooyu bu mu am hmm. parce que am na koy xaar am na ko soxla démocratie normale aussi euh, ce type d'expression war nañ a permettre. maintenant nag yéen ngeen xamante ne jot ngeen dund bitim rek xool affaire yi di ngeen koy gis opposant bi ñu leen di téye ci kii yeeg yooyu noonu ndax situation bi da ngeen ko fay di gis. waaw xam nga mentalité démocratie ak liberté d'expression dafa am si benn niveau boo xam ne foofu la mën a foofu foofu lañ koy yóbbu. Mm-hmm. amaana ne nag sunu réew yi peut-être euh, liberté d'expression yi moo tolloogul foofu mais euh, war na mën a nekk politicien avéré. sénégalais euh, qui à la conquête du pouvoir pour qu'il puisse être en contact avec les populations sans mu am lool mais par contre na ko def dans un cadre légal dans un cadre réglementaire ba nga xam ne du gàllankoor le euh, l'ordre public. Mm-hmm. waaw mm-hmm. mais yaakaar naa ne daal euh, erreur la waroon nañu mën a jël ay matuwaay ba mu war a mën a dem fi muy dem à chaque fois nañ koy bàyyi muy dem fi mu war a dem. Mm-hmm. ak ni mu fa war a demee loolu tamit mooy dëgg tamit quoi. Mm-hmm. parce que à chaque fois day mel ni sabotage nañ ko bàyyi mu exprimer wu ni mu war a exprimer wu. ça day mel ni benn acharnement boo xam ne qui ne dit pas son nom. bon je ne vais pas utiliser le terme acharnement. puisque mm. bon du il faut que ñu contextualiser kii bi. Mm. mais Ousmane Sonko c'est un citoyen sénégalais fii dañ fi gis ñuy organiser ay jàng ci tali yi dañ fi gis ñuy organiser ay mbapat ci kii yi dañ ko bàyyi par rapport à sa liberté de circuler et maintenant s'il draine une foule par rapport à l'ordre public dañ ko encadrer par rapport à ces ok mais diggante ak Macky dañoo gis ne diggante la boo xamante ne normalement ki nekk au pouvoir ak ki nekk opposition naam daan naam benn adversité mais mu dem ba bëgg a jéggi côté boobu loolu naka nga ko gisee. bon euh, man yaakaar naa ne diggante moom ak Macky Sall euh, Macky Sall c'est le chef de l'État du Sénégal ki mm-hmm. incarne le pouvoir public qui mm-hmm. incarne le pouvoir de l'État qui incarne le pouvoir républicain mm-hmm. Ousmane Sonko c'est un Sénégalais un leader d'opinion qui va à la conquête du pouvoir bi Macky Sall yore yaakaar naa ñoom ñaar sax waroon nañu mën a dialoguer fekk du dialogue bi bi muy am nii euh, dans un dialogue sain benn esprit benn gëm nga ne dialogue boobu mën na am mën na dina am mais évidemment parce que boo gisee ku nekk ñi nekk sa ginnaaw ni ñuy xëccee ku nekk Euh, dina doon lu yomb. ñi nekk ci ginnaaw ñoo lay jiite wala yow yaay jiite. ñu yow yaay jiite mais ñi nekk ci ginnaaw dañoo gis ni écart bi day gën di yaatu saa bu ñu xëyee. waaw plus que ñuy gën a dem si ay élection élection hmm. yi plus que muy gën a yaatu muy muy gën a xaj bi mais on a vu ici dans l'histoire du du du Sénégal le rapprochement Abdou Diouf Abdoulaye Wade. Hmm. ala kulli àll di. mais boo bokkul woon parce que ñoom gis nañ ak lépp si mënut am Wade daan dugg ci gouvernement di génnaat mais ñii euh, ni ñu ni ñu ni ñu seb d'ailleurs dañu leen di qualifier sax opposition bon peut-être c'est c'est seen mode de de politique. Hmm. seen mode de discours xam nga tey y a un discours très populiste que qui est en train de prendre part dans le monde. Hmm. foo ko mun munti xool tey ce qui incarne le populisme ñoo gën a jege. population bi par rapport kii mais nag lenn moo si lenn moo si constant. bu nekkee affaire état la ñuy wax dans un état républicain le parti au pouvoir et l'opposition dañuy am benn mode de dialogue. Hmm. dialogue bi nag lenn lañ koy mën a wax ba mu nekk dialogue de haine. gis nga man léeg-léeg loolu laay wax euh, aujourd'hui on a benn culture boo xam ne dañu dem ba euh, dañu dé déconfiturer les relations humaines yi war a am entre lignes et les relations d'intérêt day dem ba day extraposer wu si benn position boo xam ne warul nekk parce que à la kulli alim àla kulli alin ak ñi fi nekk tey au pouvoir la coalition au pouvoir dañ fi mës a jóge mhm. te ñi di incarne pouvoir bi tamit seen ay comportement seen ay fait seen ay propos dañ leen di ko indilaat donc le mieux mooy ni si on aspire à incarner l'État il faut que ñu sóoraale lu bëri am un comportement républicain ba nga xam ne ëllëg ci biir vaar bi mu ngi fi du la mën a dab Mhm. loolu doxalin boobu lan nan lañ fa war a mën a yeggee cest à def ba nga xamante ne euh, au lieu que ñu si ku nekk di xoolante en chair de faïence mais ñu doon ñoo xamante ne di ngeen doon ay adversaire oui mais benn moment bi tamit ngeen am ay retenue boo xamante ne doo gis ñeneen ñi di yegg ba ci vie privée wu jàmbur ci réseaux sociaux yi di dugg foo warta dugg naka la ñuy def ba ba ba ba décrisper comme ni ñu koy waxee tuuti. avoir une conscience responsable. moi je pense que c'est c'est en face de responsabilité. Euh, lu ma la mënti lu ma mënti am adversité ak yow ak mu ma mënti doon euh, mën naa sauvegarder samay intérêt mën naa défendre samay intérêt je peux même être violent mais violence am na fenn foo xam ne du kiw surtout cette violence verbale cette violence physique warul warul am Je pense que les arguments pour certains qui incarnent à diriger ce pays, certains qui incarnent à gérer ce pays, yaakaar naa ni war nañu mën a am cette grandeur. Mhm. de devoir se défendre sans que mu nekk ay bassesse. puisque man am na yenn te yenn actes yoo xam ne. boo ko mais débat bi léegi dafa wàcc trop xaw ma ndax yaa ngi ciy bàyyi xel. c'est débat politique bi. dëkk bi. am na fii loo xam ne ku nekk su nekkee yow li nga daal li ngay def en privé bu ñu ko génnee si ëtt bi am na ñoo xam ne dañu teg seen bopp corps dañu def corps de seen seen baat parce que chacun a sa vie privée chacun a son point noir li ngay def sa biir kër li ngay def en privé c'est en privé ça te concerne yow waruñu ko mën a def espace public mais nag bu nekk eggee tamit si espace public bi ki mu dal na nga am maturité nga am grandeur xam nan nga koy gérer aujourd'hui c'est on a l'intention surtout nag ñi mu gën a concerné mooy ñi nga xam ne soit ce sont des leaders d'opinion sont des activistes wala am nga baat wala kii am na ay seen yoo xam ne dañuy dem ba dañ leen di pousser wala seen statut la ñenn di bëgg a pour dal seen kaw et bu ñu amul maitrise rek mooy scandale yi ñu fiy dégg yëpp. Mhm. et donc je pense que ak station boo munti nekk. ak position boo munti nekk lucidité boobu war nga ko mën a am ba yow ci sa bopp même si tu es attaqué d'avoir la grandeur nga xam nan ngay réagir ba loolu bu mu nekk benn scène boo xam ne day nekk seen de violence day delluwaat ci contre yow je pense que man aujourd'hui un leader ci loolu laa koy xaaree mm. euh, même si victime parce que parfois dañu dem ba ñu non il se victimise effectivement koo dal si kaw mu victime la. Mhm. mais yow yaay mën a am grandeur bi nga xam ne dangay ngay gérer loolu gérer ko nag cela ne veut pas dire que euh, donner la face à l'autre wala replier ngay kii non c'est de savoir euh, en rigueur avec force avec intelligence mais surtout avec fermeté faire face à cela. ok eh, dañuy dugg ci beneen point mi mën wàllum politique bi soxal Aminata Touré ak eh, coow li mu am ak Macky Sall eh, ba mu génn taxaw jàkkaarloo ñoom mu ne leen wutaale mbirum troisième mandat la ñu bëri na ko déet gëmuñu loolu li ñu deful président assemblée nationale moo ko waral coow loolu noo ko gisee. bon coow euh, effectivement coow la c'est une première hein, dans mm. l'histoire du Sénégal euh, genre cas boobu am mais man dama koy damay damay damay xool process bi aboutir si loolu. kan mooy Aminata Touré kat mooy makki Sall kii lan la def léegi léegi maa ngi lay wax léeg-léeg da ngay yootu sa nit dara. Mhm. doo ko jot après mu mu mu mu mu dem si leneen. à mon humble avis à mon humble avis ñeneen ñi fan la nekkoon bi Macky sàll di jël Aminata toure di ko def tête de liste. ah lan moo taxoon Macky sàll jëf Aminata Touré tête de liste. lan moo am si diggante bi ba mag bon puisque dans la logique. Mhm. dans la logique bu ñuy xool résultat élection mën naa la citer ñetti dëkk de grande démocratie Espagne Pedro Sánchez mm -hmm. il gouverne avec moins de trente pour cent à l'Assemblée nationale Angleterre Leeds mm conservateurs yi amuñu majorité confortable Italie euh, amuñu majorité confortable ay coalition la ñu def pour mun a donc à l'Assemblée nationale ki nekkoon tête de liste bi normalement Aminata Touré moo waroon nekk présidente de l'Assemblée nationale. Mm-hmm. qu'est-ce qui nag ba Macky Sall def ko ñu bëri ñu jàpp ni ko wor la. wor la Aminata Touré génn na génn na pourquoi parce que defuñu ko présidente de l'Assemblée nationale moi je te demande de te de te mettre à ta place. Mm-hmm. tu es présentateur d'une émission. tu as mené cette émission. tu es le général. le chef des troupes tu vois tu gagnes les élections tu, tu gagnes la bataille on vient à la place de décorer le général on va trouver euh, sergent pour lui donner la médaille c'est tout à fait normal c'est ça fait mal ça pousse la personne au, euh, à une rébellion ça il faut le comprendre bon maintenant nag politique moo demee noonu Aminata Touré s'est exprimé les autres se sont exprimés c'est la vie politique qui est comme ça mais man li ma jàpp ni que lu si munti am Aminata Touré aspire à diriger ce pays Macky Sall aspire à être mm-hmm. troisième mandat moom nee buñ ko wax man de du ma wax waxu troisième mandat parce que moom nee na bu ñu ko wax. Mm-hmm. te am na ay déclaration yu mu def si loolu ñii ñu ngi ne troisième mandat lay kii mais attends tungu ne du teew ñuy natal. Mm-hmm. sa Macky Sall qui a dit de ne pas parler du troisième mandat le moment venu il en parlera concentrons-nous à ce qu'il a actuellement. et je pense que loolu waxam mu ngi fi ba léegi lan nag lay def. même bu présenté au troisième mandat c'est au peuple de trancher gis nañ fi kaaw Abdoulaye Wade. coow li bëri neex yàlla on ne devrait pas revenir sur cet esprit de troisième mandat Macky Sall si la loi si la constitution selon ñoom seen interprétation nee nañu il a droit au troisième mandat nañ ko bàyyi avec le peuple sénégalais. Mm-hmm. c'est le peuple qui est mais est-ce que tamit Macky Sall waroon na yegg foofu ak peuple bi sax bu gisee coow li fi xewoon 2011 euh, yëpp. nañu jël en mémoire feu Mamadou jóg fan la deewee nan la deewee ak yan contexte la deewee si la si la loi puisque Abdoulaye Wade gisoon nañu mobilisation bi mu fi defoon si la loi le lui permet moi je parle de la loi si la loi le lui permet il incarne la loi laissons le peuple souverain s'exprimer si le peuple au moment des élections trouve que effectivement il a droit au troisième mandat et il vote pour lui c'est le peuple qui s'exprime mm-hmm. mais nag euh, moralement am na lenn loo xam ne nañ ci waxante nañ nañu xoolante ci la mu waxoon mu wax ak na mu ko yàgg waxee maa ko verrouillé du ma demaat yooyu bul watikoo demaat tamit xam nga loolu yëpp wax na ko moom moo xam si ban contexte ak ban interprétation la si def c'est le chef de l'État c'est lui qui s'est exprimé euh, nee na doot duñ si waxaat vraiment euh, nañ ko jox bénéfice boobu jour bi mu waxee ju bés bu génnee ne je suis candidat à ma réélection en troisième mandat à ce moment-là on saura quoi dire par rapport à cela mais du moment où il a demandé de ne pas s'exprimer pour pour ça jeu d'échec là jeu d'échec là il est en train de poser des actes nous aussi lisons ces actes-là ala kulli alim il s'exprimera un jour. Mhm. bientôt il va s'exprimer et au de s'exprimer là on verra ce qu'il la réponse qu'il kon mi war woon mi mi jiitu naan troisième mandat du fi am ak yooyu ak yu ni mel. Mimi moo gën a xam Macky Sall kuy xam Macky Sall. Mhm. Mimi ak Macky Sall xamante nañu. Macky Sall lan la def Mimi ba mii euh, jàpp loolu Mimi seen fan la sukkandiku pour wax loolu am na fu mu ko teg am na fu mu ko teg donc tey lu munti am. lu munti am. gis na dafa am ay jalons yoo xam ne mënoon nañ ko tegal et ça aurait rassuré tey débat bi fan la nekk mooy ni que Mimi n'est pas présidente de l'Assemblée nationale selon une logique politique. boo xam ne yow jàpp nga ni moo waroon nekk man jàpp naa ni effet de surprise bi am jour boobu à l'Assemblée nationale c'est la nomination d'une autre personne à la place de Mimi. c'est ça la réalité. Amadou Mame Diop Amadou Mame Diop. d'ailleurs ku kenn xamul ku ko public bi xamul woon. président qui nomme. nommé na loo xam ne yow le citoyen lambda ça t'a surpris mm-hmm. c'est ça la vérité il faut le reconnaître kuy politique ak ku dul politique dala jaaxal mais moom mooy nome mais par contre nag lenn laa xam ne moom bon du pour défendre Mimi à la place de Mimi ku ñu ko defoon tamit nga di réagir ni Mimi di réagir kooku moom loolu moom. c'est surprise moo rëyoon moo mbetteel la ko xaw ma ban effet la def si moom. mais moi je parle de la personne humaine je parle de l'homme d'État je parle de de de la commandante en chef des troupes celle qui au combat celle qui la liste mm -hmm. je, si ce qu'elle a dit c'est ce qu'il y a la salle qu'elle a compris que moi je pense que ça a manqué un peu d'élégance. Je pense que ça a manqué un peu d'élégance. Une personne comme ça, on la consulte, on discute avec elle, on lui fait des propositions, on lui fait les observations et on prend la décision ensemble. Quitte ak nga woo ko ngeen waxtaan quitte ak ngeen échanger mais je pense que quelque part c'est inélégant de le faire comme ça ok assemblée nationale bi ñu gis ne am nañu assemblée bu yees ñëpp jàpp ne dina doon loo xamante ne bon dina doon assemblée bu am euh, qualité bu am rupture ak lu mais lañ fa gis ci ndorteel gi nii ñu bëri ŋàññi nañ leen eh, njort nga mu wuute ak la fi doon nekk wala da nga yaakaar ne bi mooy gën a sëgg kayam fi fi nekkoon sax. jàpp naa ne ñoom war nañu mën a am conscience wu que li leen di xaar li fi jóge euh, li leen di xaar moom gën a métti mais xam nga man lan man. dama dem si benn plateau jour élection yi ñu koy def mhm. tendance yi dégagé wu ma ne gàcce nga laama euh, Sénégal Sénégal encore defaat na benn bon parce que tey bu ñu ñëwee ba euh, le parti au pouvoir amul euh, majorité. majorité confortable am na ñu majorité mhm. mais c'est pas confortable man lecture bi ma si am mooy ni que bon politique bi jiite loolu waroon na mën a am benn ouverture am lecture euh, liggéen génn si élection yi léegi-léegi maa ngi lay citer Espagne maa ngi lay citer Italie maa ngi lay citer France France bi ci boppam mm-hmm. doo gis ko am majorité confortable te da ngay diriger sa dëkk ak ni mu koy je prends l'exemple mm-hmm. de de de l'Espagne yeneen partie yi dañu ñëw pacter pour digérer aujourd'hui moi je pense qu'au Sénégal euh, bi coalition benn Bokk Yaakaar amee majorité boobu ci n'est pas confortable bi ñuy constituer gouvernement bi waroon nañu mën a waxtaan ak beneen parti bi xool nan la ñu cohabiter wala nan la ñu ubbee seen gouvernement pour beneen minorité confortable minorité bu confortable la. Mm-hmm. nan la ñu mën a defee dans l' action du gouvernement. c'est-à-dire moom gouvernement d' ouverture quoi ubbi ko ñeneen ñu dugg. opposition bi dugg. mais loolu day fekk opposition gouvernement di waxtaan mais ñi waxtaanuñu. kan moo coupé waxtaan bi. opposition moo bañ wala gouvernement mais quel que soit alpha si c'est pour l'intérêt de la nation un dialogue doit être établi entre la force au pouvoir et la force d'opposition pour trouver des mécanismes de législature yoo xam ne au moins du ñu bloquer le système de fonctionnement de l'État et loolu lan la mën a lan la waroon lan la nan la mënoon amee mooy ni que ñii bu ñu gisee seen bopp si li ñuy def imaginez tey si l'opposition voyait concrètement l'action du gouvernement avant que muy ñëw si euh, parlement bi kon du même débat bi doon du doon am mais blocage du doon am parce que fi ñu koy élaborer euh, politique bi fi ñu élaborer loi bi balaa muy ñëw ñoom am nañ si le le minimum mm-hmm. donc euh, man je pense kii bi ñu kii ni gouvernement d'ouverture la waroon nekk gouvernement élargi à l'opposition la waroon nekk gouvernement de combat la bon gouvernement de combat slogan la bon mm-hmm. gouvernement de combat combat contre l'équité contre pour l'équité sociale mmh. go, euh, combat pour euh, xam nga le bien-être social mm-hmm. mais man jàppoon naa ni boo combat bi mu ngi fi ah combat bi dafa mës a nekk mais ce qui est fondamental par rapport ak loolu lu mu munti doon daal mooy ni ki stabilité sociale la ñu soxla surtout euh, si contexte bi ñu nekk guerre Ukraine ñu ngi génn ci Covid ñu ngi génn ci ay crise aujourd'hui les lendemains sont très très très difficiles mm-hmm. xamuñu ci ban cap la ñu jël Euh, pétrole baa ngi fii gaz baa ngi fii ñu ngi ci déséquilibre euh, normal lañ nekk moi je pense que stabilité sociale lañ gënoon soxla et stabilité sociale boobu ci gouvernement bi lañ ko waroon mën a gis gën a gisee quoi. ok semaine passée dafa am benn coow lu fi nekkoon mu am ñoo xamante dañoo demoon di déposer benn lettre de contestation sax ñu indi leen jafe-jafe mooy coowal ambassade France ba nga xamante ne duñ la jox visa. danañ jël sa xaalis ba pare téye sa passeport sax léegi de teg ko ci mu jur coow yow mi nga xam ne da ngay taxaw ci lu jëm ak ak yelleefu ñiy nekk bitim réew ak ñoom ñëpp coow loolu ban taxawaay ngeen ci am. taxawaayu ñaxtu puisque juróom benn weer ci ginnaaw man sama bopp bind naa société prestation bi ne leen am na ñuy ñaxtu non seulement ci qualité de prestation bi euh, ñaar ci délai de traitement yi. ñett si rétention passeport yi donc amuñu si tontu loolu juróom benn weer si ginnaaw la ñuy ñëw processus bi di yaatu ba mu ñëw ay étudiants doomu Sénégal yu amoon seen ay pré-inscription bi ñu paree si mois de juillet di préparer seen entre mois de septembre am ñu am jafe-jafe pour dugg si plateforme am rendez-vous rien que pour am rendez-vous déposé ji ñu bañal la wala ñu nangu plateforme bi tëju boobu aussi ñu attirer attention ne ah waxatuma sa waxu bañu ba bañ leen jox visa bi parce que ñenn ñi si yoon lañ leen ko war a jox mais amatuñ sax fu ñuy déposer visa bi rax si dolli amatul woon benn interlocuteur waxatuma société société bi société de prestation la moom day def rek jox yooyu yóbbu ambassade euh, yóbbu consulat de France mais consulat de France si boppam amatuñu interlocuteur koo xam ne mën na la wax lii moo xew mais loolu nag si réew boo xam ne service la boo xam ne danga koy fay dafa rafetul dafa rafetul et donc boo demee ba xamatoo foo jëm da ngay ñaxtu donc génn di attirer attention autorité locales yi pour ñu xamal ñii seen naataangoo étranger yi fi nekk que ñu ngi noot li ñuy def du yoon protestation boobu c'est légitime. mais mais mais lan mooy lan moo waral coow ñàkk weg la wala lu mu nu mu demee noonu diggante bi boo léegi waxatuma la nga jot seen visa waaye léegi boo déposé par sax coow li fa la jëkk commencé. waaw xam nga xam nga réew yooyu bon man mooy li may wax euh, euh, il faudrait que ñu ñun tamit ñu am sunu fulla ak sunu matuwaayu bopp pour xool ni que man am na dina tey suuf am na fenn foo xam ne bu ma fa demee benn yoon xooloo ma bët yi nga ma war a xoolee teeruwoo ma ni nga ma war a teeruwee gisuma li ma fa tax a dem gisuma si li ma si soxla damay xoolaat sama bopp mm-hmm. naa xoolaat benn yoon sama bopp su waree ma jaaraat fa su may ñëw naa xool nan laa fay ñëwee moom ba muy nekk lu may noot taamu nañu France taamu nañu Schengen taamu nañu kii mais bu nekkee ñu ñaxtu bi bëri na suñu autorités yi nañu am matuwaay tamit jàkkaarloo ak partenaires yooyu wax ak ñoom par rapport ak loolu lu mënul ñàkk nañ koy rafetal mm-hmm. parce que ñàkk dem France mënul nekk parce que partenaire la partenaire de développement la partenaire commercial la partenaire sportif la ñu bëri dañ ci war a dem mais nag ñi nga xam ne ñoom ñooy samp lii link boobu euh, bu ñu xool rek ñoom facilité yu ñu am ak seen passeport diplomatique. Hmm. parce que suñu bëggee dem ñu dem mais passeport diplomatique boobu askan bi moo tax ñu am ko te askan bi am nañu jafe-jafe wax ak ñoom ñoom. amaan na ni amaan na ni ñu ngi wax ak ñoom ci suuf mais ni ñu fësal ni que biral ni nit yi nee leen ah li ngeen di ñaxtu jot nañ ko te yeggal nañ leen ko su boobaa la ñu xam ne ñii si fulla la ñu nekk ak si fayda mais part partaaral bi kenn xamul si leen boo bindee duñu la tontu loolu moom wax dëgg est-ce que autorité tooguñ di seetaan rek est-ce que du seetaan bàyyi leen leen neex ñu def loolu la ñu xamul est-ce dañu est ñu ngi réagir puisque la diplomatie est silencieuse aussi mm-hmm. diplomatie du lépp la ñu coow amaana ni sax ñoom ñu ngi wax ak ñoom mais ñàkk a ñàkk ñu yëgal ñu ñun usagers yi que ñu ngi wax ak autorités yi tamit dafay dafay jaxaso donc ñoom bu ñu waxee ak ñoom coow bi toll foofu ba am ay xale yu dem di def protestation bu ñu téye leen ñoom war nañu gën a ne ah xale yi li ngeen di wax nii de ñu siy dox ay tànk saay bu ay jéego amee dañu wax ak yéen mais ñàkk communiquer loolu moo waral difficulté yooyu ñuy rencontrer. ok euh, France rek la ñu wax léegi mais am na ñoo xamante ne gaal yi la ñuy jël pour dem. Euh, donte Macky Sall mi ngi def lu nekk gis nañ fi trois fpt gis nañ fi DER FONGIP teg nañ ko fi di ko dooleel chaque jour ñu kañ li nga xam ne mën nañu def comme résultat mais dañuy constater ne rek euh, dafay am benn période ci année bi ñëpp dañuy màngaani wuti géej gi pour dem bëkk ji dem génne ji yegg ci île des Canaries wala yegg feneen ci ci bitim réew euh, lan moo waral loolu dañu échoué ci ci ci ci ci jël xëyu ndaw yi wala ndaw ñi rek ñoo amatulu leen doy seen réew ñu màngaani wuti bitim réew. bon problème bi c'est structurel. conjoncturel bi mën nañu kii mais effectivement am na fi ay programme yoo xam ne état bi teg na ko et man su may def évaluation puisque tamit euh, am na si yoo xam ne man dama leen di fréquenter damay jël ñetti kii euh, je prends l'exemple du trois fpt wax dëgg yàlla euh, bi ñu ko créé ak léegi fi mu jugee puisque da xool corrélation wu ñi nekk si formation formation professionnelle et technique ONFP mu ngi fii 3FPT mu ngi fii tey 3FPT ñëw na positionné wu dans le secteur de la formation ba nga xam ne daanaka tey c'est incontournable boo demee université xale yëpp ñu ngi màbb dem 3FPT pour wut ay bons de mm. formation mais foofu tamit je rends hommage à la directrice euh, actuelle euh, bon ki fi jóge tamit def def liggéey bu baax euh, Abi Sey sama sama jigéen la sama xarit la partagé nañu ki fi ñëw aussi mu tombe ci contexte boo xam ne 3FPT euh, dafa nekk ci contexte croissant fi mu doon nekk benn tey fukk ak ñaar fukk et d'ailleurs j'appelle le chef de l'État à revoir vraiment les moyens attribués à à ce fonds-là mm-hmm. parce que mooy li may wax si aujourd'hui la formation est ouverte ki fi ñëw ku bees Sophie Diallo euh, madame Sophie Diallo am gis-gis bu bees bu mu si am ubbi ramener les bons de formation damay jox benn exemple xaw ma les les les donne sunu kii sur presque dix-sept mille demandes. il y a que trois mille bons de formation trois mille cinq cent bons de formation dafa déséquilibré day yàq image u projet bi parce que projet bi tey xale yi approprié nañ ko. parce que fu 17000 personnes dem di laajte am nañ fa mm. yaakaar. c'est vrai am na donc moyens yi ñu ciy yi mettre à la disposition c'est 3500 day déséquilibrer vraiment les résultats euh, escomptés les résultats attendus. Mm. donc loolu lu ñu war a corriger la et j'appelle le chef de l'État euh, les autorités pour ñu xoolaat loolu parce que tey lu mu lu mu lu mu néew néew néew. 3FPT moteur d'engagement la par rapport à la formation professionnelle. tey au moins am nañu instrument am ñu outil boo xam ne mën nañ ko jàpp pour xeex mbëkk mi tey xale yi bu ñu bëggee dem mën nañ leen orienter vers les 3FPT mais dafay fekk les moyens tamit mu fekk. mais est-ce que communication fa waroon yegg yegg na fa ba xale yi xam ko parce que am na ñoo xam ne dañuy gis ne dafa kawe trop. ñu améliorer ko parce que liñ ko instrumentaliser pour xale yi bañ a dem la léegi nag xale yooyu boo leen former. parce que mu ngi fi man xam naa si dara j'ai participé à des séminaires ak waa 3FPT te wax dëgg yàlla je rends hommage à leur personnel ce sont des gens très disponibles yow boo fa jógee tey boo fa demee di nga am un interlocuteur vraiment le personnel est disponible structure la rare structure yi may dem ci structure état yi si saa si au moment où tu veux tu as un interlocuteur qui peut te parler de ton problème muy guichet yi Euh, loolu moom mën nañ ko seede te kenn sax lu ñu sukkër ñuy wax lu ñu amul maa mm-hmm. ce sont des partenaires à tout le temps moo woon leen ay observation ak ay kii mu ñëw problème pôle emploi foofu tamit mu am beneen dysfonctionnement boo xam ne par rapport ak organisation bi ñu ci war a def tey mun ne war a nekk benn outil intermédiaire entre 3FPT pôle emploi délégation à l'emploi l'employeur DER euh, e euh, rapide mu nekk benn conglomération daal kii yoo xam ne war nañu mën si war nañ si mën a indi benn euh, mooy li ngay wax outil de communication buy permettre aujourd'hui que le jeune sénégalais puisse s'orienter par rapport soit à la formation soit par rapport à l'emploi mais mais mais leen moo waral loolu lépp tegu fi nekk fii teewul ndaw ñi di xëy ba di génn dëkk bi c'est au-delà de ces de ces structures gis nga ma wax la dara am na beneen projet boo xam ne dam ko xool si tali bi mhm. xawma leen kiiwuma leen UCG mhm. nettoyage des rues mais Dakar mu ngi commencé jël beneen. envers mais mi ngi def liggéey bu bu bu rafet. je connais pas le directeur je connais da ngay xool. am na tey benn dignité boo xam ne ñu ngi koy commencé delloo si xale yi avant liggéey si mbalit kenn bugg ko woon. Mhm. bale tali kenn bugg ko woon. tali yi dafa salté woon tey je vois avec beaucoup de fierté des jeunes sénégalais seen biir uniforme yu vert mhm. nekk ci tali yi di brosse nekk ci auto poubelle yi di récupérer di kii donc ce qui veut dire que les mentalités commencent à changer par rapport ak programme boobu gis nga programme boobu ni ñu ko defee 3FPT ni mu commencé di jël ascendance boobu buñ ko accompagner par DER xale yi di mën a exprimer wu di dem mu am ay programme agricole c'est-à-dire tamit xam nga lan mooy kii accessibilité wu programme yooyu les financement là doivent être disponibles et rapides euh, gis process yi buñ ko wàññi woon tuuti amaana ni dina delluwaat benn espoir xale yi delluwaat ci tali bi di bare parce que am nañu espoir am nañu espoir xale yi dem di ràññi 3 FPT di dem pôle emploi di fa fanaan pour ñu mën leen enrôler parce que am na lu ñu gëm gëm-gëm boobu nag la ñu war a mën a permettre à l'autorité mu conscient ni que ah ñii am na kii ñu delloo leen espoir boobu loolu rek moo mën a xeex mbëkk bi ok diaspora bi la ñuy des ba tey dafa amul ñoo xamante ne ñu ngi fa bëgg di ñëw te mënuñoo ñëw. boo waxee ñu ne jafe-jafe kiit la ñenn ñi tey rek nañ benn euh, doomu Sénégal boo xam ne faat nañ ko bitim réew donc jafe-jafe chaque fois danga ko gis moo ne day am nañ fi ay député de la diaspora pourquoi les données n'ont changé maanaam lan moo waral loolu amul coppite gum ci indi. bon de la diaspora euh, ay député lañu doomu Sénégal yu nekk bitim réew yu war a xeexal sénégalais yu nekk bitim réew mm-hmm. mais amuñu. amuñu pouvoir réel à partir de l'extérieur. maanaam amuñu jumtukaay. non du jumtukaay dañu amul action bu ñu mën a def à parti de l'extérieur. un député de la diaspora bu nekkee bitim réew force amul force un député de la diaspora Sénégal fii mais lenn mooy jàngat bi. bu njëkkaat la majorité des députés de la diaspora ci parti au pouvoir lañu bokkoon dañ leen xawoon tënk tey la grande majorité des députés de la diaspora ci opposition lañu bokk. man dama jàppoon ni que mooy li may wax assemblée nationale dama jàppoon ni que ñoom seen bopp waroon nañu mën a constituer en groupe parlementaire pour gën a mën a euh, présent biir assemblée nationale un groupe mm-hmm. parlementaire des député de la diaspora comme toll nañ ci quinze. comme toll nañu si quinze. mais loolu duñ ko nangu bu nekk pouvoir ñëw di di farak waa waa jege tamit. xanaa du intérêt wu réew mi loolu xam nga ne duñ ko nangu xanaa du mi moo la tax a jóg xanaa du intérêt diaspora moo la tax kii su nekkee loolu moo leen tax a jóg ñu nekk benn say. défendre na benn intérêt donc ce qui veut dire que. Souleymane loolu duñ ko nangu. Euh, euh, Moustapha ce qui veut dire que loolu mooy ni que politique bi moo leen gën a dominer par rapport ak intérêt de la jaspora bu nekkoon intérêt wu diaspora rek moo leen taxoon jug waroon nañu mën a am pôle boobu waroon nañu mën a am groupe parlementaire boobu pour défendre l' intérêt de la diaspora. Mhm. donc li leen tënk nag bu nekkee politique bi moo leen tënk du mën a loolu du mën a nekk. mais mais naka la ñuy def kon ba ñu ba ñu gën a gis seen bopp diaspora bi gën leen sentir. c'est à travers c'est à travers ñoom ñu yore seen groupe parlementaire bopp di xool li xew ci diaspora bi di def ay proposition de loi di accompagner le processus des Sénégalais de l'extérieur tant sur la politique. mooy sànq li ñu doon wax waxu visa yi. Mm-hmm. indi ay proposition de loi indi ay kii euh, modi ay ay ay ay euh, question orale xam nga accompagner euh, le gouvernement dans sa politique. les négociations avec les partenaires participer à l'effort économique la coopération mm-hmm. loolu si benn pôle groupe parlementaire lañ ko mënoon def mais kële bu taxawee fële kële taxawee fële ñi nekk ay non inscrits amul sens mm-hmm. donc tey force des députés de la diaspora ginnaaw yàlla mayoon na leen opportunité ñi si ëpp si euh, mouvance opposition la ñu waroon bokk. Mhm. waroon nañu mën a am ce groupe parlementaire la. jafe-jafe yi kët yi nekk bitim réew lan moo koy sookeel nga waral ñu bëri dañuy bëgg renouveler am problème ñu ne la consulat bi lii dafa sori wala nangam lan moo waral toujours ngay dégg ku nekk foofu naan dafa am jafe-jafe. pour am ay kayitam yoo xam ne parfois renouveler sa passeport au Sénégal lay doon mais da ngay am ay jafe-jafe. loolu problème matériel la ay renouveler passeport da ngay xam ni nag bon la cartographie de la diplomatie sénégalaise dafa xaw dafa xaw a. kii dafa yaatu mais euh, man li ma jàpp mooy ni que on aurait pu renforcer tey euh, le Sénégalais de l'extérieur problème de valise la rek problème de technique la rek problème informatique la rek sénégalais bi nekk la extérieur mais pourtant am nañ nga baal ma am nañ fii ministre des affaires étrangères am ministre des sénégalais de l'extérieur xaw ma waroon na mën a am coppite. donc foofu laay ñëw c'est-à-dire des sénégalais donc donc foofu laay ñëw tey sénégalais fu mu munti nekk waroon nañu mën a organiser wu sa passeport nga mën ko am en vingt quatre heures mais nag ce qu'il faut comprendre c'est que y a beaucoup de faux papiers qui circulent dans le réseau des sénégalais de la diaspora. Mm-hmm. beaucoup de faux papiers ñenn ñii dañu bëgg a am passeport wàññi seen at wàññi seen kii ay faux mariage ay bon y' a beaucoup de faux dans ce circuit là donc loolu bu ñu ko stabiliser woon waruñu mën a am problème boobu maintenant nag le problème institutionnel effectivement euh, nous on l'a toujours demandé Euh, le ministre des Sénégalais le ministre des affaires étrangères mhm. coopération diplomatie euh, lay gën a gérer que le problème consulaire les problèmes de de la diaspora ay meurtre affaire yooyu donc am nañu un ministre délégué mais un ministre plein avec euh, moo doon gën a faciliter liggéey bi mais néanmoins ñu ngi gis ku bees ku fi ñëw ki fi jóge secrétariat d'état la woon c'était plutôt dans les polémiques. Mhm. la la doon gën a nekk si si si effet wu. polémique amee nga koy gën a dégg. nga koy euh, gën a dégg par rapport ak. effet anticipation effet participatif gis nga sénégalais de la diaspora ñu neex a gérer lañu il suffit d'avoir leur écoute et d'aller vers eux. non Souleymane li nga wax li nga wax euh, ñu neex a gérer lañu gars yi nañ dafa compliqué de. si si que ma wax la ça dépend si ban concept nga am ak nan nga gisee lu compliqué. ce qui est compliqué pour toi peut être très facile pour l'autre hmm. et s'il un dialogue qui est établi nit ki di wax ngay dégg muy wax ngay dégg yaakaar naa ne lu mu compliqué compliqué di ngeen am benn issue malheureusement et dañ koy wax man am na benn interview bu ma def am un fonctionnaire qui au ministère des Sénégalais de l'extérieur di ne non waruñu waxee noonu mais li may wax bu la hmm. neexulee c'est un débat intellectuel indil contradiction bi moi je trouve que au Sénégal. mais loolu nag mooy suñu problème. je trouve boo leen ne fee baaxul ñu ne waroo koo wax. je trouve que au Sénégal nous avons une politique restrictive de la migration kooku bi ma waxee loolu dafa ma ne non ñun ñoo war a wax xale yi nañu toog xale yi mën nañu dem di ñëw te du yàq dara. fii au Sénégal on peut mettre un programme boo xam ne presque plus de quarante mille jeunes sénégalais peuvent sortir à l'an te du yàq dara la migration circulaire mën nañ ko planifier sénégalais yi xale yi war nañu mën a génn te du feeñ ñi nekk bitim réew war nañ leen mën a accompagner ci dëkk yu ñu ñëw pour ñu dellu ci te du feeñ lépp waxtaan la lépp stratégie la lépp ci ay négociation la am na loo xam ne mën nañ ko waxtaane la ñoom ñoo yore le pouvoir étatique ñoom ñoo yore le gouvernement ñun dañu dund bitim réew am ay prox ndollo moi je technicien de coopération internationale mhm. am na ay prox ndollo yoo xam ne dans le cadre des négociations dans le cadre des conventions buñ ko waxtaanee ak suñu dama lay jox exemple Italie récemment a régu a régularisé presque plus de soixante mille africains ñaata sénégalais ñoo ci bokk aujourd'hui la migration circulaire la xam nga main d'œuvre agricole la migration saisonnière Espagne bi passé yóbbu na benn groupe de soixante jeunes sénégalais ñu dem defi seen campagne agricole première fois ñu dem ñëwaat deuxième fois ñu dem ñëwaat exemple la migration saisonnière mën na régler problème yu bëri la migration interprofessionnelle mën na indi ay solution donc li ñuy tënk xale yi parce que tamit dafa am benn problème bu ci am mooy ni booleen fi tënkee aussi jox leen alternative li leen fi mm-hmm. toogloo te ala kulli alin muy yow di man man mi tey toog ak yow di waxtaan ak yow ñëpp jàpp ni que sama xam-xam dafa nàcc si wàllu migration dafa fekk ma génni mm-hmm. tey bëri na fi tey ñu ngi cité ay cadre ay kii seen expérience seen xam-xam dañ ko renforcer à partir de l'extérieur tey ñu bëgg a tënk xale yi mais xale yi dañu dem di di di di jàmbaarloo ak bitim ak bitim réew atu la lay jox exemple tey exemple laay joxe si kii laa nekk imaginez par an par an ñu possibilité wu mobilité wu na jël benn chiffre bu tuuti ñu def ko mathématiquement ñu xool prenons ka euh, cinquante mille sénégalais de l'extérieur yuy ñëw par an ci biir cinquante mille sénégalais yooyu ku si nekk bu ñëwee lu mu néew néew dina àndaale trois mille euro trois mille euros cinquante mille sénégalais par an ñaata la donc nit yi tant que ñu ngi ñëw di àndaale dara koom bi day day day day yokk mhm. mais bu ñu leen tënkee fi ñu nekk du ñu mën a ñëw te problème bi yëpp problème mu loolu la dem bi ak dikk bi bu ko facilité gis na problème mu visa yi ñuy wax nii suñ ko waxtaanee avec les partenaires au développement les partenaires des autres pays war nañ ko mën a régler war nañu mën a accompagner xale yi la mobilité académique xale yi di dem gi mm-hmm. amul kenn ku toog bëgg a toog bitim réew fukki at te gisoo sa njaboot gisoo see papa gisoo sa yaay gisoo sa ay sœur munoo ñëw gisantey say bëkkandoo say dëkkandoo amul kenn ku ko bëgg ñi fa toog ñëpp da leen wóor suñu ñëw suñu ñëwoon dañu mën a delluwaat si jàmm ak salaam amaana day def at ñaari at dañu dañu dellu si donc bañ a ñibbisi bi yëpp mooy ñàkk am kayit bi loolu tamit léegi nag ñi fi nekk tamit bëgg nañu développé wu. bëgg nañu génn. bëgg nañ développé génn bi du génn parce que di génn rek mais ku nekk. bëgg nañu tekki. Euh, nan nan la ko Olof Ndiaye di waxee. ku ku dul tukki du xam fu dëkkuwaay neexee. mais loolu Olof Ndiaye moo ko ku dul tukki du xam fu dëkkuwaay neexee. Mhm. ndegam picc yi sax dañu wëkki euh, mala yi di kii mais nañu bàyyi nit yi dem mois j'appelle à une politique d'ouverture une politique d'accompagner de la migration te mën na nekk. mën na nekk tënk bi ñu kii waruñu topp les partenaires au développement yi nga xam ne dañu dew gis na dafa mel ni comme naxe mbaay la naxee mbaay bi mooy ni que toog leen ñun ñu ñëw mais ah loolu fan fan lañ ko war a mën a teg nos gouvernants nañu comprendre style boobu toog leen ñun ñu ñëw <laughs> waaw yow yow yaa ngi ñëw man mënu ma dem. c'est vrai ah mënul nekk. mënul nekk. ñoom si yow li nga am man ma soxla ko te man yow li nga yore man mënu ma si jot. mais ni ñu ubbeekuwaat tuuti ni ñu ubbeeku. mais mais mais façon politique bi politique migratoire bi ne nguur gi amuñu ko. bon am na fi benn defar nañ fi benn élaboration d'une d'une politique migratoire politique migratoire am na problème bi mooy c'est à l'exécution exécution politique migratoire bi moo xaw a féete boor. Mm-hmm. parce que boo xoolee ministère des euh, ministère des affaires étrangères mu ngi fii euh, ministère délégué des sénégalais de l'extérieur mu ngi fii direction générale des sénégalais de l'extérieur mu ngi fii ñooñu ñëpp am na si lenn lu ñu tënk mais tënkuwaay loolu yëpp mooy li may wax rek c'est-à-dire c'est l'ouverture tey un diplomate mën na dem yaa am na ñoo xam ne mais da ngay xool fii da man gis naa ambassade de France rejeté kenn koo xam ne euh, chiffre d'affaires chiffre d'affaires am va autour de six cent millions mayuñu ko visa relevé compte bancaire yi yi mu présenté pour pour cette demande là c' de millions am lettre d' invitation boo xam ne c' est c' est une société c' est une multinationale qui est basée euh, en France moo ko invité kooku dafa soxla ay certificat d' hébergement il a euh, euh, am na attestation réservation d' hôtel confirmée am réservation d' hôtel am invitation d'une multinationale société wu mu ngi marché bulletin relevé de compte bancaire bi mu dugal est de cent cinquante millions une personne crédible chef d'entreprise kooku lan nga koy bañalee visa de visa de quinze jours visa de quinze jours lañ ko bañal pour aller rencontrer ses partenaires pour aller kii mais attends am na lenn nag loo xam ne dañoo waxante dëgg suñu njiit yi ñoo si mën a taxaw. yooyu du respect sax yenn yi. yow yow yow yow Moustapha Mbaye yow tey un journaliste nga war a mën a tey développer benn sujet. Mm-hmm. sa société jël porte garant defal la lettre de garantie d'envoi de congé yow nga war a mën a traiter benn sujet ils te prennent entièrement en charge avec une attestation fiable pour nga mën a dem defi sa ay investigation film li ngay filmer c'est un problème ñoom buñ fi ñoom buñ fi buggee ñëw def si seen non attends am na nag nañu dañu wax ñuy dal suñu kaw mais équile dafa déséquilibré la mobilité dafa déséquilibré nous ne sommes pas tous euh, des des des des potentiels émigrés loolu dafa amul nous ne sommes pas tous des des des, des potentiels émigrés clandestins. ok manque de respect sax lañ ko lañ ko mën a tuddee quoi parce que war nañu joo mën a wekk tuuti euh, Souleymane bëggoon naa ñu gën a xuusandi ci wax ji mais je pense que li ñu ci temps jeex na dama lay bàyyi nga def sa mot de la fin wala boo amee message booy jàllale nga jàllale ko. le mot de la fin c'était c'était c'était Euh, euh, vraiment ñu ni encouragé leen. Mm. encouragé leen di ñaan yàlla bon ñun Sénégal lu ñu gëm. Mm. Sénégal lu ñu gëm que ce soit la situation politique on s'exprime sur les questions de la migration parce que dañ si gis dañ ko xam tamit dañ ko dund. Mm-hmm. loolu moo nekkaloon bitim réew su ñu neewee ni que nañu nañu xool. neewuñu de facto loolu mooy li war a am mais y a des mécanismes yuy permettre suñu rakk yi suñu xarit yi suñu mbokk yi di voyager bitim réew les mécanismes sont là concertation la laajte discussion la laajte pour loolu quant à nag la vie politique vraiment euh, nañu bàyyi yàqante bi il faut ñu changer mentalité yi mm-hmm. il faut que ñuy changer mentalité yi euh, mag yow mën nañu bañ a déggoo mm-hmm. mag yow mooy li ma doon wax démb man li ma doon wax démb rek maa ngi koy wax sama benn jigéen ma ne ko tey adduna bi toll na foo xam ne tey ki nga gënoon nekkal sa xarit ki nga gën a àndal ki nga gën a bëgg suba mën na nekk sa noon te kooku mën na la yàqal loo xam ne ki nga gënoon bañ démb moo kooku ngay gën a xoole kooku ngay gën a nawee loolu jikko jooj nañ ko changé du du lu baax. rafetul nañ nañ nañu xool gis tey man du ma xool suma intérêt. su ma xool sama intérêt toog suma intérêt ba di noot keneen ki. ba kooku di ma xoole tey mbañeel. te tey toll nañu foo xam ne boo jëlee réseaux sociaux yi buzz yi si réseaux sociaux yëpp scandale sexuel la mm-hmm. amul doomu aadama bu dul vivre sa sa sexualité wu amul maire beek paa beeg xale beek loolu yëpp mais sutura yàlla mm-hmm. ku nekk suñu nañu sutura scandale matrimonial scandale matrimonial diw xuloon ak jabaram diw xuloon ak jabaram diw rey nag jabaram divorcé na yooyu rek tey mooy mooy def actualité bi beneen troisième actualité bi mooy man ak diw séqoon nañu affaire linjaa na ma jàmm na ma fekk ne dëgg waxante dëgg gis gor doomu aadama position boo munti nekk lenn rek moo ci am sol te muy dëggu fexeel ba bul sos hmm. li ngay wax na dëggu ci yow te jafe-jafe bu demee ba am soit conciliateur gis na loolu esprit boobu buñ ko amoon hmm. kon tey bëri na ay scandale yu ñuy dégg ay xuloo ay ŋaayoo du doon am la vie politique hmm. ñii di incarner le pouvoir ñu xam ne dañ leen dénk dëgg la nag pouvoir dafa neex trop mm-hmm. am ay mandarga am ay privilège dafa neex trop mais privilège yu yàlla moo ko gën te niñ la ko joxee moo moo ko dañ la ko dënk amal pas-pas amal yàqin ni nga am confiance ni que danga koy delloo te da ko war a delloo si mu gën a rafetee yow mii di wut mm-hmm. nguur yàlla mooy joxe nguur bum la jaral nguur bum la jaral yàq sa nawle nguur bu mu la jaral waxal sa nawle si ñaata nit tey ñoo nekk si prison bi si wàllum politique loo xam ne dañ ko bëggoon def wala dañ ko def wala dañ leen ko jiiñ mal boobu vraiment war nañu mën a tey sunu sunu su suñu bopp war nañu mën a cultiver sunu ay ak war nañu mun a cultiver suñu expérience ba nga xam ne tey aujourd'hui on a l'impression que au Sénégal maintenant c'est une violence verbale qui est au à jour si tu n'es pas violent verbalement tu n'es rien si tu n'attaques pas l'autre ou si tu ne te défends pas d'une façon très agressive à l'autre tu n'existes pas que ce soit la vie politique comme la vie sociale comme la vie religieuse da xool sax tey dafa dem ba dans nos vies religieuses ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu waroon stabiliser ñoom ñoo ñu waroon jàngal ñoom ñoo ñu waroon day tey ñoom sax dañu xixaaba bante seen biir vraiment il est temps il est temps que nous jeunes mhm. qu'on se ressaisisse qu'on ait un esprit de dépassement ce pays ne peut pas être une jeunesse saine une jeunesse consciente une jeunesse participative, une jeunesse qui anticipe, pas une jeunesse qui est toujours attardée sur les réseaux sociaux pour faire des dénonciations. Certes, okay. on peut dénoncer, mais on peut bien dénoncer. On peut être sur les réseaux sociaux, mais dans un esprit constructif, dans un esprit participatif et dans un esprit éducatif. loolu rek moo mën a yóbbu Sénégal kanam puisque Sénégal bon bi ñuy dem. Mhm. bon après horizon deux mille vingt cinq gis nañ ñuy bëgg européens yu ñuy bëgg américains yu ñuy bëgg a su ñu bëggee yem ak ñoom fi ñuy yem. il faut ñu xoolaat suñu bopp nanguwaat li ñu doon am fierté ni ko ñun la ñun la suñu biir. gëm sa bopp bi gëm sa bopp l'estime message bi am na solo message bi nga tëjee fort na trop trop trop yaakaar naa ne képp kii ndaw déglu nga ko am na solo tënk na waxtaan bi yëpp ma lay remercier si sa disponibilité ak waxtaan bu am solo bi ñu baaxel xam naa tey waa diaspora bi nañ kontaan trop suñu jotaay bi parce que souvent dañu ko doon wax nañu dañ leen di fàtte suñu grille de programme mais ñuy remercier bu baax a baax euh, Souleymane Aliou Diallo si débat bu am solo bi ñu fi doon ku jàpp si émission ba mu yemb di leen jox rendez-vous incha allah beneen invité merci